kuréel bi nga xamante ni moom la ñuy dippee collectif d'adhérents de la mutuelle de santé de agents de l'État nekk kuréel bi nga xamante ni lu ko tax a jóg daal mooy gën a gën a daal respecté li nga xamante ni moo di liggéeykat yu nekk ci état doon jàkkaarook taskatu xibaar yi daal ngir addu jëm ci anam bi nga xamante ni moom la ñuy gérer seen boobu kuréel ñaaw lu baax a baax a baax jëf yu ñaaw ya fa am rawat na wàll ko injustice ak li ma tamit ak ak ak li nga xamante ni tamit moo jëm ci wàllu njuuj njaaj moo tax ñu mer ba futt di sàkku daal ñu indi gën a indi ay leeral si xamante ñoom lañuy ñuy gérer seen boobu les kuréel. ay problème yoo xam nii li ñuy wax mal gouvernance maanaam yore ab kuréel daal na mu la neexee ni ñu ko yoree sax kenn du ko yoree kër loola neex nga def loola neex nga dépenser kenn xamul fooy dugal xaalis bi doo wax kenn lenn doo tàggu kenn doo sartoo ak benn yoon woo xam ni mutuelle bi moom la tëral Euh, ñu seetlu ci ni depuis deux 2016 ba léegi dafa mel ni daal ñoom suuf mbirum suuf daal xam naa agence immobilière sax la ñu bëggoon transformer mutuelle bi ut suuf daal bokk na ci li leen yitteel lool lool lool lool. te loi yi nga xam ni dafa tëral affaire mutualité daf ni wan xaalis bi nga xam ni moo nekk ci mutuelle bi na jëm ci faju membre yi. mutuel dañ ko taxawal bul faju kon xaalis ba li ci ëpp na dem ci faju ñi nga xam ni ñoo bokk ci mutuelle bi ñu seetlu itam ni jamono boobu yépp li ñu ameel pharmacie ak prestataires yi jéggi na dayoo xaalis bu bëree bëree bëree foo dem ci biir Sénégal nit ñi di ñaxtu di wax ni amel na leen xaalis euh, depuis 2016 ba léegi amuñu benn budget parce que dañaa def assemblée générale ñu voté budget ñu commencé liggéey depuis 2016 ba léegi dañuy liggéey sans budget maanaam lu leen neex daal la ñuy dépensé juróomeel bi section yi nga xam ni dañu nekk ci biir réew mi am nañu quarante mille membres dañu teew ci département Sénégal yépp mutuelle baa nga fa section yooyu nekk ci base bi nga xam ne dañ leen war a dooleel ñu war a toppatoo militants yi dara dara dara amuñu ko ñoo ñuy débrouiller seen bopp rek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 ñu ne nañu fi jëlee ñii yàqkat yi ne leen fi jëlee. tamit pëtaxlu nañu ci boobu leen ndaje ngi ñaaloo seen kilifa nu muy gérer li nga xamante ne moo di collectif bi maanaam nee nañu tamit li ni tegul ci yoon tamit ay jafe-jafe rek leen di jural te tamit ba jur nga xamante ne moo di wàllug jafe-jafe seen wàllug wér-gu-yaram seen njaboot moo tax te nee nañu tamit li ni mel daal bu dakkul daañu porter plainte yóbbu yëf ci yoon ngir mu indi ay leeral jëm ci anam bi nga xamante ne nu nañu gérer bi nga xamante ne mën nañu dippee collectif adhérent de la mutuelle de santé des agents de l'État Euh, conseil d'administration bi nga xamante ne moo fi tegoon euh, comité at hoc bi bi leen gars yi yóbboo tribunal ba juge bi euh, aj seen seen organe boobu ñoom it dañu lancé appel appel bi laaj juge bi que dans le fond ñii nga xamante ne yorin bu ñaaw bii lañu yore te ñun ñoo leen faloon am nañu sañ-sañ seppi leen ci sañu kanam ndax mucc musal suñu organisation beneen bi mooy euh, porte plainte DE bi à la personne de son président parce que mbir mi yëpp mooy que kuréel yi war a mun a toog pour a mun a saytu yorin wa conseil d'administration bi pour euh, président bi convoqué ko dans le plus bref délai bu ko deful na ko tribunal doon door ay daan mais ñun loolu loolu doyuñ parce que mbappat kooku seen jardin la ñoom dañoo yàgg mbabat ci mbapat ci tribunal ñun duñu mbapat ci tribunal lan la ñu am sañ-sañ bu nga xamante ne ñun ñoo jël suñu alal di ko ci dugal mu war ñoo jëriñ jëriñ suñu njaboot ku ci dox wala gàllankoor mbir mooma dañuy jaamaarloog yow dafa jot nag ñu jaamaarloog ñoom loolu moo tax ñu ne tey loolu moo ñu yëkkati pour Sénégal xam fan la ñu toll ak li ñuy yëkkati li ñu yëkkati mooy jaamaarloog ñoom ba nanguwaat suñu moomeel teg ko ci ay loxo yu wóor yoo xamante fu mu mun nañu yore affaire bi pour mu mucc bu muccee ñun lay jëriñ suñu njaboot lay jëriñ Sénégal lay jëriñ parce que tenez bu bien c'est un milliard et quelques de ressources que ces mutualistes-là injectent dans le système de santé du Sénégal xaalis bu takku la ñuy dajale di ko ci def donc du ñun rek du suñu njaboot rek mais même dañuy naxasal tissu économique réew mi mais di fàttali nag euh, kuréel bi nga xamante ni moom lañ dippee MSAE nekk kuréel bi mi ngi ko créé si atum 2003 lañ ko créé lu ko tax a jóg daal muy gën a euh, sàmm li nga xamante moo ak àq ak yelleef liggéeykat yi rawatina ñu nekk ci wàllug état ngir tamit seen liggéey gën a mën a yemb ak lépp lu jëm seen mbirum njaboot ak tamit seen mbirum wér-gu-yaram lépp gën a mën a am si ay anam bu gën a rafetee ak tamit ci anam bu gën a euh, sellee mu kuréel bi nga xamante ne dañoo dañoo seetlu daal jamono yi ay jafe rek la rawatina ci wàllug injustice ak li jëm ci wàllug mal gouvernance moo tax tamit ñoom nee ñu fi daal bu dakkul daañu ko yóbbu ci yoon ngir yëf yi gën a mën a jaar yoon